rafetlu délégation bi le président de la république yónnee dafa fekk nag ñoom amuñu chance politique ñi mujj ñëw ci réew mi amuñu chance politique ah chance politique ñaari ñoo ko féetlu woon président Lamine Gueye ak président Senghor ñi nu àndaloon ñëw daan làmb seen poche te di leen fajal waaw man yëg na problème li fi am yoo xam ne sëñ Cheikh Tidiane si si sa ja màggat lu ñooñu ñoo cotisé pour suqali Senghor mu nga pare président Lamine Gueye fu mu mës a soxlaa ñi ko wëroon te kenn soxla ko ci la nga yor lu dul lu faj soxla ñoom Mamadou Assane Deme ñoo ñëpp kenn ku ne sa poche ngay lam waaye les présidents Macky Sall Abdoulaye Wade et les autres ils sont mal tombés parce que ñoom ban politique la ñu tase rokk mi rokk ou aji la ko bañ loolu rokk mi rokk moom daal indi léegi lu ma def leneen wala ma seeti leneen baat mais loolu kenn du ko def waaw kenn du ko def changé changé changé changé changé xamante loo koy teg waaw réew mi nag waxoon naa ne tey bu ma dikkee dinaa leen wax ne nanu ñaan les catastrophes nous guettent et il nous guette dangereusement waaw nanu ñaan nanu dénk suñu bopp borom waaw am na loo xam ne bu xasee ba boy fay ko kenn dootu ko mën waaye ñaan parce que itam yàlla politique vague conviction donc nanu ñaan nanu yéeneente jàmm ñu ñëw ci mission bi nga xam ni ñun ñoo ci d'accord teg ko ci loxo Serigne Moustapha te moo def lu doxal noonu dañu ci ànd ak ngeen ci toll bu ci ànd àndee ñu ànd ci yéen waaye itam que jeune bu nu sañoon fu ngeen toll ngeen di wut ouverture ci wàllu xam-xam ndax it ca ngeen toll te li Cheikh Hadj Malick waxoon ni bu doon def suba su mu xëyee gis ku ko tëralal bind suba su xëyee tëral bind parce que xam-xam bi jeex lu waaye dafa gisatul ku ko jàng yooyu ci wàllu ndaw waaw ndaw nag ndaw dafa ak dundam dafay nekk en effervescence waaw rekk tout le temps tout le temps tout le boole sàkku sàkku xam-xam farata la waaw moo xam góor la moo xam jigéen parce que yeneen bi sallallahu alayhi wa biir këram bu dul moom jigéen ñaa ca ah ku dul mis fa ni ku maan hadi yi ku may rek kooku Aïcha la waaw ah. Aïcha la te du góor jigéen la mais def na effort ba ku dul yonent bi moo la